giroo njaay njaay ñëw yóbbul ma giroo giroo noo gisee wàcc bi gis naa ne liggéey na dañ naan entraînement du fen maa ngi entraîné rëy làmmiñ la. mais boo sumee koo mu feeñ. mais gis naa giro ne tekk rek nag wax la. tekk la tekk wax la. giro ñu lay nuyu bu baax a baax di la ziar. waaw Lamine maa lay fay di wax auzu billah bismillah inna waliya la di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba. di wax jaraw la ko maam Cheikh Ibrahima Fall xam nga di wax jaraw la ko maam Cheikh Ibrahima Fall di wax jaaraama maam Saliou faal borom Daaru Kofoor xam nga di nuyu waa Daaru Kofoor waa Daaru Salaam Diyooli waa Xuru Mbàkke waa Dindey Kër arro ñëpp ñu may ñaanal rek maa leen di nuyu bu baax di leen ziar di nuyu waaw Faajul waaw di nuyu tamit sam benn papa ko waa Pasar borom njaroñ maa ngi koy ziar bu baax a baax xam di ñaanal sam benn gaan quoi dafa làqu Cheikh Korea maa ngi koy ñaanal xam di ko jaalewaat seen waa kër yëpp yëpp yëpp waaw xam nga di ñaanal tamit xam nga sama gars yi nekk si biir ku si mel ni ñu mbaalo xam nga Paate Balde grand koccu xam nga ñëpp rek maa ngi dégg conseil bu baax a baax ak sama imam imam Malick waaw di la ñaanal nag xam nga yàlla teggil la natt bi doolee seewu la. Aïcha Ndiaye Ndiaye ci kër la. maa ngi ci waaw bisimilah mina rahmaan rahim ginnaaw bañ julle ci yoon bi sant suñu ñaari waajur di sant ñi ne ci saal bi yëpp waaw di sant waa Bawol di sant suñu papa papa Mbér Maxi waaw gis nañ ni ñu jaay ko sàcc doole te njaay gis naa day bëri ci tournoi yi te gis naa mën naa xeex nga jéngu jël ko lan nga bëgg a wane ba tax nga jël combat boobu loolu laa bëgg a laaj Giro. waaw père xam nga maa lay bu baax. waaw du nuyuwaat waa CNG ak xam nga du nuyu géwël yeeg. ñëpp presse bi ñëpp maa leen nuyu. maanaam man dama bëgg a nekk champion moo tax may bëreeg ay champion. waaw loolu kii aw ma lu may xel ñaar si moom. Uh-huh. bu ma nammee xel ñaar si moom yàlla na ma safara jël adiya. man dugguma si pour ay naan damay may naa bëreeg Ndiaye Tinde dama koy daan moom. dama koy jël daan ko duma ko daan ko moom xam na loolu. voilà noonu la waaw. yaa ngi ma moom dama koy duma daan ko kon ni ma def ay moromam laa koy def dama koy duma daan ko aw ma lu ma si xel ñaar. waaw loolu la wax dañ dal may duma le 19 sore le 19 soreetul wax jarul muy bari yàlla na ko yàlla defal jàmm rek defal ma jàmm ba jour ba waaw na ma mbër la lamb moom ëpp doole ñëpp ne moom ëpp doole moom a dàq bëre du loolu lañ wax barki sëriñ Bamba damay ñaan que gañ meilleur gagne suñu diggante ma moom dina yàgg voilà que wax ayca père xaaral waa Ndiaye euh, li ma koy laaj mooy gis na mu dëkk daan tonnerre daan Nokia taxul nga won ko nga won ko ginnaaw nanga wuloo bëre ak moom di xóot di soor yeneen di adversaire hmm. ba mu yàgg nga dellu si waat lan la da ngaa bëgg a jëlal ñee revanche wala sa staff ñoo na jël ko ndax kii mi ngi la topp giro bu ma ko jëlee mën naa ne ñàkk adversaire a tax ma jël ko waaw ñàkk adversaire sama am ku am booy taxawal fii yëpp amul kuñ ci sama avance nanga jël moom nag segem jël na ko dama koy sant loolu di ko ci gërëm bu baax waaw man ma jël ko nga war a xam ne man dama pare man damaa pare man amu lu may xel ñaar xam nga loolu yow bu baax barki maam Seera Faal bon wexaat wexaate dina leer suur ba ku doole ku daqal liggéey ku daqal bëre yal na la yàlla may ndam yal na la yàlla may ndam bu rëy bu dee yow yaa ëpp doole dina leer buñ jàppantee di nga xam ne lépp dëgg la yow barki maam Seera Faal laa la wax maa man du ma waga dégg man du ma waga chaque jour peut-être xaaral ma wax la xaaral ma wax la afam loolu dama koy wax quoi xam bu ñu waxee une deux trois ñu ne ñu ñeen doo leen ay waga xam li ma la ñun duñu ay waga quoi ñun ay Baay Faal lañ ñun dañuy bañ ku ñu yàpp comprendre nga ñun suñu moroom góor doo ñu xool lekk affronté ñu mais duñu ay bandi ñun nous sommes ici dans de am na loo xam dañ koy jombale suñu bopp ñun ay do lañ am na loo xam ne duñ ko dañ koy jombale suñu bopp nga def ko sa bopp bi nag man du ma waga de. wax ji daal jarul lu bëri la duñ na sorewul le 19 soreetul wax ji jarul mi bëri. waaw yal defal jàmm rek defal ko jam defal ma jam ba bés ba. Père Bour Khan. waaw mais lan moo tax nga jékki daa daw combat ma ko de ma ko de man mosuma mosuñu ma andi avance man man ma delloo ko sama sama staff laa am te dama am staff boo xamante ni ñuy waxtaan noonu la demee. kii li tax ma jël ko mënu sama combat amut booy amut booy bu ñu fi joxul na ma sama combat bëral ak moom nangul ñoo jël te du ma toog di entraîné suba ngoon di am lu ma war ñu tegal ma avance te mu dugg bawul dugaat fag dama koy jël affronté ko defal ko bagage dem seeti leneen. c'est bon nañ nañ ko di rek Paa kaay kaay père. père ñëwal père ñëwal. père ginnaaw bi ñu la nuyoo ziar na hmm. lan ngay laaj sa ñaar doom yi war a ko onze bi kalimaat laay taamaat min sharri maa xalaq ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Baay Laay Seydi ñu ngi nuyu composante lamb yëpp. di gërëm nag bu baax Fallou Ndiaye mi nga xam ni euh, plus de deux ans mi ngi defal ay journée d' espoir journée d' yooyu journée d'espoir yooyu gis nañ ci ay xale yu bari yoo xam ne ñu ngi ciy génn ku mel ni par exemple Mor Kankang ci la génne ku mel ni Ada Fass ci la génne ci journée d'espoir yi nga xam ni moom la moom la ñu Fallou di defal ñu koy gërëm di ko sant bu baax di ko ñaanal aussi bonne continuation ndax fi mu fi mu nekk nii euh, làmb yu am solo lay tëgg yoo xam ni vraiment lamb euh, lamb yëpp ñu ngi ciy kontaan muy manager yi nga xam ne maa leen jiiteeg Euh, mbër yeeg ñëpp ñu ngi kontaan ci ci Fallou Ndiaye mais di wax nag euh, euh, alhamdulilah rabbil alamin aussi ndax li ñu bëggoon ci làmb comment mi ngi commencé di am parce que am na fi ñu ngi gërëm aussi président fans club yi di gërëm Gora Ndoye mi nga xam ne moom mooy président wu amateur yi ndax li tax ñu leen di gërëm seetlu nañu am na journée yu bari yoo xam ne jàll na fi te amul benn violence amul benn violence te li ñu doon xalaat mooy lu mat dix-huit mille personne nekk nañ ci làmb ji passé mu def zéro violence kenn demul siège kenn deful daw amul xeex amul dara làmb yii passé yëpp noonu la dem kon il faut tamit ñu gërëm ñi nga xam ne bu fekkee ne bu fekk boo tooñee ñu sanctionné la boo boo defee lu baax aussi war nañ la ko wax loolu moo tax nag ñu ciy gërëm bu baax euh, góorandoo yi ak amateurs yi di ci gërëm pare président fans club yëpp sans distinction léegi gis nga ñaari mbër yi nag ñaari mbër yu bëggante lañu ndax déglu naa leen ci seen face à giroon Giro nee na ko dama daan Nokia daan euh, Tonnerre te yow laa ciy teg sama liste laa moom mu ni euh, maa ngi lay xaar ba bés kon loolu day wane motivation boo xam ne nekk nañ ci seen diggante li ma wóor mooy combat ku bëgg a seetaan combat bu neex teelal ñu ci làmb jooju damay ñaan yàlla aussi làmb ji fees dell parce que wóor na ma li ñuy commencé bagaar bu mag la ñuy commencé xaw ma nag kan mooy war dem songi waaye loolu dina am waaw loolu laa wax dama ni bagaar bu mag la ñuy commencé léegi nag li ci topp mooy kan mooy war daw songi loolu moom xamaguma ko. jërëjëf père. kan loolu ji moom la des. xaaral xaaral. lam di maa dirigé lu fay am maa koy def. te la ko. lam di maay dirigé mu la mu naqare la maay lu leer la wax. barke alxuraan force damay xeex ak yow. lu fay xew maa ma jàppal. kay laaj. ndax damay taxaw ndax la reculer. maître du ma ko reculer bu yeboon na nga ko def sa bopp. waaw ba bés ba. barki maam Seera Fall. maître du ko reculer xanaa da nga dog. xanaan may kii ni. Eh, yóbbu leen Fallou Ndiaye Fallou Ndiaye Fallou Ndiaye. Fallou Ndiaye. Ah, waaw woo ku ni Lat Diop DG quoi Lat Diop maa ngi lay woo si combat bu baax a baax a baax waaw di la wax ni nag combat yi nii sa combat la ñun ay ticket kese kese lañ bëgg ngeen jàppale ñu si xam nga du si woo tamit ku si mel ni Assane Wade quoi ak Maguette Wade waaw ñëpp ñu siy jàpp Ibzo jàpp na si xam nga ñëpp rek ñoo xam ne dañ si war a jàpp quoi grand Assane Fall grand Kalidou Ali Sarr Issa Taba su ñëpp maa leen woo waa Intekat sam booy ñum nongo bàyyi ma kenn xam nga maa woo ñëpp ñëpp rek ñu war a jàpp si combat xam nga di woo autorités yi quoi yu nekk parcelle di leen wax ne xam nga nañ jàppale mbëri ndaw yi sama doomu nday da doon non da xaaral rek keroog ñang baalo da doon bëre quoi maanaam pour nga gis ku ko jëndal ñaari bolog rek problème la xam nga nañ jàppale mbëri ndaw yi quoi xam ne ñun doomu gox bi lañ incha allahu rabi loolu kese lañ leen di wax incha allah. waaw di sant ñëpp rek di gërëm ñëpp di woo waa Bawol di woo Bawol gépp waaw képp kuy dërëtu Bawol di dox euh, di dox ci yow rek ñu lay wax bés bi nga ñëw jàppale ñu def ci ñaan bu baax a baax a baax di sant sama benn gaayen Mbay Ndour waaw ak xaritam Elimane Gueye ak soxnaam boroom for de focus maa ngi koy woo ci bés bi na ko mu ñëw jàpp ci ci combat bi waaw di woo waa centenaire yi ñëpp ñoom Ndiame bay Fall Baye Zall gars yëpp daal bu ma limee damay juum waaw